seetaan à travers Equivox TV ñu am mbégte ak bànneex di jàkkaarloog yéen rek saa su nekk ma ciy ànd nag ak Babacar ñi ñëw ak yéen ci seen journal de l'arène Babacar nuyu naa la. soxna Ami Diouf maa ngi lay fay borom Gaye Ndiaye. ci loo nekk sant muñ rek moytu. naka àjjuma yi. waaw ñu ngi nii di bëgg rek. nee na. waaw dama lay jàppale gisoo ni nga def tey. orange def sa orange. def sa zëva. nee na sangoo ma def sa tuuti rouge non boo sangoo Sénégal <laughs> tëpp yow kon. mooy loolu. allez Babacar kon nag ci kanam tuuti ñu dem seeti revue des titres bi daal di dellusiwaat ci plateau bi. asalaamualeykum wa rahmatulah asalaamualeykum wa rahmatulah. vendredi 15 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi di sunu lamb fay fa mu xëy ñëwati maanaam ci diggante Lac de Guiers numéro ak Eumeu Sène ka xëy nag di wax mooy Gaston ma tëgg lamb la mu bëgg daal te yéene ko mooy bu ñu yeggee ci ñeenti fan ci weeru avril maanaam le 4 avril la fas yéene tëgg nag boobu combat ne lii daal moom mooy ay suyam maanaam daal loolu lay ñaan et puis loolu la bëgg mel ni ki nag lamb jooju nga xam ne moom la bëgg a tëgg beneen combat ngi nii ba tey date ba ñu koy tëgg kenn xamagu ko kenn ki nag ka nga xam ne nii mbërëm moo ko war a bëri di xaadim gajaga muy président roog énergie mooy combat Modou Lo ak Ama Baldé xaadim moom fi mu nekk nii am xelam damal am xelam daal dalul ci boobu combat parce que jàpp na ne fi mu nekk nii de moom daa jàpp ne lii yoot saison bi wala boog lii yoot waa làmb daa mel ni saison deux mille vingt et un bii moom bëree ci jàpp ne war na mën a ne wala boog boo amee dina ko bet moom daal li mu gis mooy boo sàgganee deux mille vingt deux la làmb ji nara ubbi loolu mooy gis-gisu ko nga xam ne ni moo di xaarim nga jege yemu ca ba tey jàpp na ne làmb ji dañu koo seetaan maanaam daal seetaan ko kenn jàppalewu ko maanaam daal moo tax fi mu nekk nii mu jàpp ne kon làmb ji moom dañ ko bàyyi ci suufa suuf mu toog leneen loo xam ne ni xëy na wax na ko moom xaarim nga jege jàpp na ne kii di Gaston Mbengue nekk na promoteur boo xam ne daal ci làmb homme de sérail la ko xaarim nga jege tudde moo tax mu jàpp ne day ku ñu war a jàppale la ndax nag ku baax la ca la nga xam ne ni moo di làmb ji xaarim nga jege moo xëy di wax loolu mbër tamit ñëw na di leen jooyal ca la nga xam ne nii deseetuñ ko ci xaalis maanaam lu ñu yoroon dépensé nañ ko moom Khadim Gadiaga ma njiite Rock Énergie moo xëy di ko wax keneen ku jiite écurie ñu koy wax ma ma la mu la jiite jàpp na ne huis clos moom nee na bu fi sasee de xanaa ko waaye jàpp na ne daal nekkul formule bi gën loolu mooy gis-gisu ko nga xam ne nii moo di Mamadou Sarr kii moom engagé wu na ba fas yéenee defante muy rëg-rëg bu caaroy tey nag lay jóge New York wutali fa nga xam ne nii moo di ca Singapour fas yéenee daje ka nga xam ne nag moom mooy ale boog doomu Cameroun booba waaye rëg-rëg moom la mu xëy xamal waa réew mi daal ne na bu ñu yeboo seenam xel nañ dal ci moom ndax moom wóolu na boppam te itam liggéey na lu tax mu jàpp ne mook alain buñ ca ba jóge ca moom bu la loolu la nga xam ne ni moo di gis-gisu Omar Kane di rëg-rëg ba tey ci yëglikaay boobu nga nu ñëwee ci sunu lamb wala nu des fa nga xam ne ni moo di ca tuus yi mu mel nekk nag fi mu nii day alhamdulilah bu ñu wax ko ndax nag mbay gi ma nga xam ne ay weer a ngi ñu hospitalisé ko ci ab clinique daa mel ni ki nag fi mu nekk nii daal tane na ba génn na mu mel ni ki yëglikaay bi xëy na tey dina ko wax ne leen nag kanu xamal loolu du kenn ku dul soxnaam xamal na ne daal ki nga xam ne moo di Mbaye Guèye génn na ba fa nga xam ne nii léegi fa la nekk di dallu mooy ca kër rakkam Moustapha Guèye deuxième tigre de Fass yëglikaay bi di su làmb moo xëy wax nu loolu buñ fa jógee dañuy continuer ñëw record record nag moom bu nu xëyee école booy ñaa daal la xëy tey jàngat ci at yi nga xam ne moom la nu mujje waaye daa mel ni école booy ñaa daal fa nu jàpp baax na te itam seenu form moom leer na nañ yëglikaay ba moo xëy ñëw dinu ko wax 41 victoire ak 22 défaites yoo xam ne ni daal ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa école booy ñang dajale nañ ko mel ni ki daal nanuy doxee moom boo bëggee dégg-dégg bi jàpp na ne lu awu yoon la 63 pour cent de daal la jàpp ne ñoom ñooñu taxaw nañ ca tey boo doon xool seenu pourcentage demara saison ba nag mel ni ki yëglikaay bi ñëw na ca tey ubbi tëgg maanaam daal mu mel ni gars yi bokkuñu kàddu guñ cay waxe de maanaam promoteur yaag ña nga xam ne ni ñoom ñooy waa CNC ak ñeneen bokk maanaam daal daa mel ni ay ñàkk bokk gis-gis walay waxin am na ca ba tey moom record ñëw na tamit dinu xamal rëg-rëg daal ne tey jii moom lay joge fa nga xam ne moo di ca New York wutali Singapour ngir nag fas yéenee jongante combat MMA booba ak ale ma nga xam ne moom mooy ngalane kon nag li ñuy def mooy ci barke yow mal jumaa ji nga xam ne ci la nekk tey rëg-rëg sa combat boobu yàlla na ko gañe waaye démb li neexoon Leeru Jaan moo doon feete anniversaire am happy birthday to Leeru Jaan borom 14 janvier nee nag ñiin fukki at ak benn la am man lii moo ma jaaxal te liiru maa ngi dégg ñu naan am na cinquante ans man nag loolu daal mooy sama problème ku ma ci mën a ginde hélas boo yeboo nga ñëw jàppale ma ci ati liiru jaan yi nga xam ne saa yu xëyee di ko wàññi voilà li moo nekkoon revue titre titres ñu ñëw yéen ci seen journal suñu làmb ñu gis nag ci à la une ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 mu yéen ak date boo xam ne kii tëgg làmb bi di Gaston Mbengue retenir na ko di le 4 avril loolu ban jàngat nga ci def Babacar waaw maanaam la 4 avril ci la bëgg a def làmb ji ginnaaw bu mu la nuyuwaatee siyaar la ñaanal la jàmm ñaanal ko internet yi ñuy suivre ah Gaston ne defe naa ne li mu bëgg loolu buñ ca yeggee buñ ko temps bi ma na yàlla def loola mën a am mais nag saison bi daa ubbeegul moo tax waaye moom yéeneem la wax maanaam la 4 avril la bëgg a tëgg combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 muy combat boo xam ne Sénégal yépp a ngi koy xaar la ñaan yàlla nag mooy yàlla na saison bi ubbi parce que ba fii ñu koy waxee ni ami lamb ji maanaam amaguñ ci lu leer ci lëndëm lañ ne ba tey maanaam kenn mënula wax ne la làmb dina am wala du am wala bu fekkee am na ku ko mën a wax kon xëy na le président de la république lay doon ak son ministre des sports muy monsieur Matar Ba mais à part ça ah man boog ci li ma gis gisaguma lu leer waaye nag moom Gaston Mbengue defe naa ne ah tey ak fi mu toll ci làmb ak kilifa bi mu doon si réew mi defe naa ne war na gën a mën a soññ autorités yi te defe naa mu ngi ci woon na ko gën a continuer pour que ñu mën a wax waa taxawee ci biir fi nga xam ne nii wala boog ci saison ren bi moom la ñu nekk voilà Babacar ci jiixi jaaxa boobu ndax lamb bi dina tijjiwaat wala du tijji ki nga xam ne moo di Xaadima Gajaga di président Rock Énergie di tiit moom itam ci combat Modou Lo ak euh, Ama Balde ah, ko jaar moom mooy président moom euh, làmb moom ku ci amul jaaxle xanaa kay da nga kiiw rek waaye war nañ ci am jaaxle parce que ci jëma ah, Xaadim Gajaga parce que combat Modou dafa yàgg taxaw parce que est ce que ëppul un an bi mu taxawee ak léegi boobu tey yàlla dogal ci diggante bi ndok amoon na fi ci promoteur bi di Luc Nicolaï xale ñu arrêté woon ko ba yàlla def ñu bàyyi ko ñu koy nuyu di ko ziar corona bi ñëw mais depuis boobu ba tey ñu ngi xaar ñaari mbëri ku ne xam ne li metti na si ñoom ah par la suite tamit di dem ba benn moment di nga xalaat nga ne ñi est-ce nañ bëre ren parce que saison bi comme li ma waxoon léegi ubbeegul te xamuñu kañ lay ubbi kon nag li ci nekk daal soxna abi mooy ah ñu yónnee yàgg rek ba xam fan la wane di mujj ak ay bëtam comme ni ko la fi di léebe voilà ba tey rek ñu desandi ci euh, combat huis clos yi ki di Mamadou Sarr nag di président écurie euh, Tex Texas moom nag euh, daal di d'accord la ci yooyu combat. waaw huis clos bi maanaam moom dafa gis ne xëy na bu amee leneen huis clos bi moom xam naa ne même promoteur yi si dama naan gënalu leen. même gënalu leen parce que li tax mooy promoteur bu sañoon bu organiser bésam. amateurs yi dañuy ñëw donte di billets yi rek kese kese moo koy rentabiliser mais xëy na dompat sot la boog dina am lu billets yi di dugal mais tey lamb dafa baaxoo ànd ak supporter ànd ak amateur lamb ji neex am animation loolu la ñuy soxla mais bu fekkente ne nag feebar dafa ñëw te xamuñu nu ñu ciy taxawe ah su keroogee itam bu fi see dañ koy def pour mbër yi mën a bëree libéré wu doon dem uti leneen ñu xaaraat mais nag wax dëgg yàlla huis clos moom soxna ami mhm. du benn kenn kuy seetaan lamb ku huis clos gënal donte lii seetaan ci biti maanaam ñu ñëw stade ñoo ëpp fuuf ñi ñëw stade mais nag dagg bi ñëw seetaan dafa neex parce que waxuma la dara mais xamante bi stress bi ngay dindeeg bés boobu dimanche yooyu loolu macha allah quoi. voilà Babacar nga wax léegi sa biir kàddoo mbirum feebar suñu xel dem ci ki nga xam ne moo di Mbaye Guèye moom nag ginnaaw ba mu amee criso AVC daal dina génn hôpital ba actuellement mi ngi ci euh, kër rakam bii di Tafa Gueye waa ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yëkkatee ak jàmm suñu per Mbaye Gueye parce que tey defe naa ne icône la ci wàllu làmb bañ ko Tigre de Fass neexal ko dañ ko ko tuddee ngir njàmbaar gu mu woon ci benn combat boo xam ne nii bu réyoon la xeex ba metti lool ci nit ñu ko netlee ba yàlla dogal mu risque ko bëre ba daan moo tax Tigre de Fass bi ñëw tey dafa naa bu demee nag ci làmb tey bëre ba bàyyi bëre former ay rakkam former ay doomam mhm. ba Tigre de Fass tey di exister grâce à Mbaye Guèye la dafa naa kon kooku ah su wéradee duñu mel na def leneen lu dul ñaanal ko yàlla yëkkati ko ñaanal bépp doomu aadama boo xam bi ko AVC ne man kera man ak père Bekaay Mbaye ñoom euh, nuñ koy waxee Ibakkan mhm. ak waa ASC gendarme bi nga xam ne daf leen a yàgg supporté mhm. ñoom ñëpp dajewoon nañ këram boobu demagul yàlla na fa jaare daal wér peleg ba dellusiwaat ci biir askan wi ndax Père Mbaye Gueye ku ñu soxla la ci làmb rawatina Sénégal dëgg la ni ko Babacar waxee rek ñu koy ñaanal wér gi yaram rek ak mm. fan bu gudd kooku di Père Mbaye Gueye mm. ba noonu rek ñu dem dugg ci combat MMA ki nga xam ne nag moo di rëg-rëg mu ngay quitté New York rek ngir dem tey Singapour di waajal combat boobu ak kamu camerounais bi di Ngalani moom nag xam na ne bu ko jàppee rek mooy combat bi jeex na. <laughs> rëdd yi soxna Ami boobu moom moom maanaam nekk na koo xam ne nii tey ci làmb parce que lutte avec frappe lutte simple bi muy def tout le temps bu ñëwee li mu bëgg lay imposé yaakaar naa tey. MMA itam ba mu ci duggee combat bi mu jot a jongante fii Dakar ñu gis ko daaw defe ba mu ñëw itam dafa imposé comme ko seexaloon gagné ko tey yàlla dogal mu engagé waat beneen combat moo Ngalani Alain mhm. a jóge tey New ah, di ko défendre bu demee ci combat boobu te defe naa itam ko gisee fii ci sport réew ni mu ci yëngutoo mhm. ak dogg beeg gëm-gëm bi mu ci am loolu bu ko yóbboo ci MMA bi néew ma desu ko gagné de mais mën na cee dajale ay ndam yu bëree bëri kon daal place am boobu ca Singapour lépp yàlla na nekk réussite rek di nuyu tamit entourage am bi ñoom Cheikh ñoom euh, Daawur gars yi nga xam ne tamit fii ci làmb ji dañ koy jàppale bu baax a baax. voilà Babacar bi ñu ñëwee nag ci euh, journal record ñu fekk fekk ki nga xam ne moo di Boy Niang ak écurie moom nag ci ñoom ci écurie boobu noonu. Mhm. saison cinq saison yi nii ñu génn. Mhm. ñu am ci li nga xam ne moo di 41 victoire ak 22 défaites mu mel nii nag sorewul ak écurie Tay Shinger. waaw loolu moo lay wan ne kon école Boy Niang du école bu yàgg mais macha allah. biñ ko taxawalee ak léegi xëy na at yi yàggagul mais ñu ngi liggéey parce que lii liggéey la boo xam ne ah positif na boo ko xoolee tey 41 victoire ak 22 défaites defe naa lu ama am solo la loolu nag li ko waral mooy maanaam parce que foo xam ne dégool mu nga fa di papaay Boy Niang Cheikh Ndiaye boxeur mu nga fa ñoom Bourkhane Wade ak ñeneen ñi nga xam ne ñu nga leen wër di leen encadré dafa naa xale bu fa nekk rek soo dégloo dangoo jëfe ndigal bàyyi tere sa carrière war nga ci mën a am li nga soxla kon ñu leen di félicité ci taxawaay bu nga xam ne am na ko ci juróomi at muy loo xam ne vraiment bilaal la bi nga xam ne daal bu xel mën a nangu la daal soxna ami waaw ba tey rek ñu desandi ci euh, combat huis clos yi CNG ak euh, promoteurs yi seen i a contradictoire Babacar maanaam contradictoire bu ko a dégg kii danaan gauche kii ne droite <laughs> waaw kon nag li ci am solo daal mooy ñoom comme promoteurs yi moom bu ñu amul làmb du am CNG tamit bu fi amul desul mën a organiser kon defe naa ñooñ li war a am nag mooy nañu waxtaan waxuñu nag ñooy bokk xalaat mm-hmm. mais nañu waxtaan ñoom ñëpp ba xool la gën ñu mën ko def pour que làmb tamit mën a euh, taxaw parce que defe naa ne ñoom li olof di wax rek ñu bokkuteen ñooy laxasoo gëj te ñoom ñoo bokkuteen bi voilà lii lañ fi amoon tey nag dafa mel ni rek ci suñu journal de l'arène mhm. xibaar yi daal na ndar keppe yow Babacar lan ngay tàggatoo ndar keppe ah. ndar kepp ndar kepp ndar kepp amire doomu doomu doomu doomu Saalum bi waaw li ñuy tàggoo di la kontaane di bég si yow di la wax ne rek macha allah <laughs> waaw toujours femmes yi rek ngay gis égal lui même ah <laughs> du doon <laughs> ah, dama déggul tubaab nag elle toujours souriante xam nga yaa ma gën a xam yal na yàlla defal jàmm di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa ay soppeek say xarit ak say mbokk yépp fu sa mbokk nekk rek jàpp leen ne kii moom suñu rakk la suñu xarit la dañ koy téye comme sœur ñu bokkal ndey ak baay parce tamit yàlla moo dogal loolu quoi di leen nuyu di nuyu suñu soppe yépp ñoom doo nga Fall maa ngi koy bëgg bu baax a baax mais sëñ Fallu ñaa moom tamit Maroc du ko fàtte di nuyu waa groupe baax ak fans club Babacar bi ak ki nga xam ne nag tey ma ma jox lii ma sol muy <laughs> Salimata kenn du Sali maa ngi koy bëgg <laughs> mais tisi bii Global Textile moo fi jaar ca fa nga xam ne mooy unité 12 Parcelles Assainies maa ngi di nuyu bu baax a baax ñoom waa Global Textile di nuyu képp koo xam ne daal soppe nga El Hadj tamit am solo tamit quoi nit moom maanaam dafa am lu waykat bi waxoon loo gëm mu gëm loo la te macha allah vous êtes mais nag ku fonk li muy def la xulle tamit mu ngi ci ginnaawam yàlla na njàng mi gën a mokk ba mu gën a mën a tari di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre à travers le monde voilà lii liñ fi lii lañ fi indi woon tey nag di leen jox dig daje rek ëllëg incha allah.